alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala ashraf al ambiya wal mursalin seydina wa mawlana muhammad ibn abdillah xaatim al ambiya wal mursalin wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala mbokki lislaam mbokki eh, tariqa tijaan mbokki faydatu Cheikh Ibrahim Niass ñëpp ñi nga xam ne uysi nañ ci jataay bi nga xam ne jataay bi yàlla la ramzi alquran la barke bu jóg bu jóge ci asamaan ñëw ci ñun ñu ñëw dajee ko fii fekk naa ñu bari ñu ma jiitu ñoo xam ne seen kàddu yi wedam loo na suma kàddu ba nga xam ne ndax li ñu wax rek li wax rek loolu laa wax kon nag su ñëwee ci guddi gu tedd gi di fàttaliku Cheikh Mouhamadul Haadi mi nga xam ne moo fàkkoon lii boobu feebarut boobu boobu ragalul ragalul wéra di ci yaramam ndax naka jekk dafa cëri alxuraan waxtu wu mooy waqaf suma xel dana dem ci Cheikh Mouhamed Rahadi ba nga xamee ne bàyyi moo ñu boole woon mu ne ma indi sa loxo mu ne fekk dañoo ànd jógee ca ñeseen la daara ji nekkoon mu ñëw gaare otoom ñuy dem mu ne kaay kaay nu ngeen àndee mu ne ma indi sa loxo ma jox ko suma loxo mu jël loxo sëñ al teg ko ji ne ko dina ma ne ma dénk naa noonu la ñu def. def ko sëriñ Mamoun def ko cheikh cheikh euh, arab Mouhamadul Arab ñoom ñëpp ñu daal ne ku nañ dénkaani boobu ba ca léegi boobu ba léegi man awma beneen jàpp waaye lu mooy Mouhamadul Haadi moo tax bi ñu taree alquran fekk ñoom ñu ber leen ci néeg yi nga xam ne mooy fi Pape Mahmoud nekk nii ma nga dalee woon ci néeg bu njëkk boobu muy cheikh néeg bi mu cheikh Mouhamad Nazir cheikh Mouhamadul Maahi teg tegu ca Mouhamadul Haadi tegu ci Mouhamadul Amin topp ca cheikh Mouhamed Aqibu daal topp ca ànd boobu lañ nekkoon ma gis dundam bi muy dund su xe ni muy def ba bi muy bi ngoon loolu ma dem ba chronique ci ba nga xam ne waxtu wu nekk mi may fàttali moom ni mu doon def waaye waxtu wu ma koy def itam dana fàttali ko cheikh Mouhamed Rahali kon su fekkee ne ndaje nañ ba mu dem ñu dem te demut fenn waaye dafa dem ca baayam rek te ndax lim fi bàyyi woon. mi ngi dox ba léegi Mouhamadul Haadi Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim Mouhamadul Haadi ba tey moo fi nekk ak ay rakkam ñu nekk fi démb di tey rek su Cheikh Mouhamadul Haadi ñëwoon teew fii tey du dafay gën a dafay kontaan xam ne demut fenn ndax ki dee mooy ki nga xam ne da dem sa mbir yëpp taxaw yoroon sax wax na ko nee na nit ñetti ñetti bis rek la am bis bi muy gën a àddina ak bis bi muy dund. ak bis bi muy dellu dellu ca boromam bi muy gënee àddina ak bi muy dellu ca boromam mënu dara nit ñi rek ñoo koy dimbale kon nag mu xam ne benn bis bi mu fi toog ci diggante bi kon ma kon toog moom rek la am ci muy liggéey bisab tey bi ci ngay suba te ci fond ñi mi ngi ñi ngi ko fondement yi bisi démb ba mu ñëw fii nag nekk fi tàllal loxo ñëpp di ba suñ koy tagg dëgg dëgg dañ naan taalibe bàyyi la taalibe Baye loo ko wax ci Baye mu nangu loolu rek la doon roy loolu la doon def ci mbooloo mi loolu la doon def ci jumaa ji ba am na sunna soo xamee fan yëpp dégg naa ñuy woote set setal jumaa ji moo ko daan def at mu jot surtout gannaaw suñ defee ñu defee koor gi nga xam ne ñi dañuy gën a indu ci nekk ci jumaa ji ak boo xamee ne dañoo dañoo jàng kaamil njàngam kaamil yi ñuy def dana mobiliser lépp lu mu am daal di ñëw indi ko fii def ci ay kéem def ci def ci alalam def ci lu nekk pour wan nit ñi néegi soo nekkaan ci gàmm gi soo gisee taabal yi ñuy ñëw di sëlwi waa gàmm gi rek xam na Cheikh Mouhamed moom Cheikh Mouhamed Hadi moom moo jiite loolu loolu nag kenn ku nekk ci njabooti Baye ak suñu waxee Baye du Baye rek ak doomam yi de doomam yi mooy dañooy du moom yi te ñëpp moom lañ nag ñi ngi sant yàlla ci bisub tey bi bi nga xam ne ñëw nañ ñi ngi wax Cheikh Mouhamed Hadi ne li liñ fi bàyyi woon sax na maama yanfau naasa fa yamkusu fil ardi li nga fi bàyyi woon benn nit benn bis kii la am weer wi ñu nekk ci weer wi nga xam ne weeru yaa ngi dégg kàddu yi alquran ci weer wi la juddoo woon muy constitution yi l'islam lépp lu yàlla santaane ci téere bi la ko def lépp lu mu tere ci téere bi la ko def kon téere bi mooy suñ teeg mi ngi fi rek nee nañ su àddina di tukki sax te kaamil bi mooy njëkk njëkk njëkk a sànku su ko dee mbugal door wàcc wala wala wala wala teraanga door a wàcc kon nag suñ ñëwee fii tey ci bisam dañuy fàttaliku Cheikh Mouhamed Ali ni ko sa soppe yaa ngi nii jógee fu nekk ci biir ak ci biti mbokk kenn ku nekk daf laa defoon xarit kenn ku nekk dafa laa defoon mbokk kenn ku ne dafa laa jàppoon lu bëri loo xam ne maa ngi koy wéyal suma dund bi ci ron Cheikh Mouhamed Ali laa nekk ndax ba mu ñu boolee ca daara ji noonu bi ñu demee ba fekk ñu tabax leen juróomi néeg yooyu ñu nekk léegi kenn ku nekk ku ku ku tari rek dem ca ka sa mag jom la joxoon moo tax sëñ aadi nekk naa ak moom dëkk ak moom man kenn may rakkam di bëkk néegam di xaadimam boo xam ne boobu rob curant amul fi ndox amul fi su ma demee ba gis waxtu yu ñu bëgg a eew ma dem ci teen juma root indi taaj su su ko dee ma su jógee ma defar lal bi ba jël yére yi li ci tilim ma yóbbu ko ñu fóotlul ko ma dem jël yi nga xam yóbbuwoon nañ ko ñu indi ko loolu ci la ma yaree ba nga xam ne man ak moom benn lañ te dañ koy wax rek ngir bunta fàttaliku ne fàttewuñ wa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin waaye xam naa ne kenn fàttewut Cheikh Mouhamadou Haadi kon nag su ñëwee dajee fii nga xam ne ñëpp ñëw nañ suñ ñëwoon dëpp rek mel ni ni ñuy def arafaat rek muraada mi àgg na ba pare sàkkaa bi ñëwee rek ba nga xam ne dégg nañ fi ay kàdd yu tedd ay kàddu yu xam ne benn ku nekk li mu wax dëgg la soo xoolee si ba pare xam ne lii dëgg la ñu ñëw ñu jiital ci imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé nga xam ne mayut boppam gan mayut boppam benn ngant ñëw fii waaye naatiqul rasmi Zeyni Shabab Seydi Mahi Cissé mi nga xam ne moom itam mu ngi teew fii may na ngant képp may mayut ngant képp koo xam ne yaa ngi ut ngant sa bopp bi ñu ko joxe ay jumaa ji ba léegi fan yee paase rek mu ma nga fu mu mën di dem su àjjuma jotee mu ñëw su fekkoo ne nag ne maanaam ñiy bàyyi yar yëpp kenn ku ne lan la bàyyi woon yaa ngi ko téye nii kon dara du yàqu waaye alhamdulilah bi nga xam ne dara yàquwut ndax ñenn ñi ñooy jubal ñenn ñi ñenn ñi ñoo fi nekkal ñenn ñi su fekkoon ne maanaam su dëkk bi naqadee rek ñëpp dem kenn du fi nekk kon dëkk bi dana wéet waaye dëkk bi mës a wéet dëkk bi ay kàngam ay ay ay bànqaas ak ay ponk yoo xam ne ñu jógee nañ fi ci fukki at yi dëkk bu mu jógoon bu dul Medinati Cheikh Baye mu tas waaye alhamdulilah la fi nekkoon ba tey mu ngi fi maa ngi dend ak cheikh si cheikh cheikh cheikhul xayri bi mi nga xam ne moom itam ak xaaj misri ñuy muqaddam bi nga xam ne ñoom waa na sax ci ñoom lañ daan xamee ne ko weeru koor feeñ na ndax bañ demee ba am jot ca si ak liñ doon ci seen way jur yi ku ju ku ku su su ñëwee soo leen gisee ñu ñëw rek nga xam ne weer weer weer weer koor yi ñëw na léegi nag yokk yëf yi mooy yokku duut ne dafa wàññeeku de waaye fii dafa yokk la bàyyi waxoon ci ba mu nga xamee ne bàjjen asta yal na yàlla yokk leeram mas naa ñëw koo bàyyi du Thiam am na xaw ma ak amarkata mu daal di ñëw fekk dëkk bi dafa sonnoon dañoo xiifoon ba am na ay tàng boo xamee ku jógee Mérina de yelwaan te borom kër yi ñoo doon dem di yelwaan waaye suñ xamee ne Mérina nga jox jóge sax duñ la jox duñ la sarax bàyyi ne leen muñ leen bis dana ñëw mbaliti Médina yi sax nit mën a cees lekk ba suur nit mën na cee enoki waaw ba pare waaye loolu yàlla def na ko benn bis nag dafa am oto bu ñëw jógee dakaar Berlin yooyu ñu oote ci jumaa ji ñëw leen ñëw leen ñëw leen dimbali ñu ci wàccee wàccee wàcce ceeb bi ndax oto bi dafa war a dellu Dakar bàyyi génn taaj piliyaanam toog waxtu ñu wàccee fukki saako rek mun a yóbbu leen yóbbu wax ne yóbbul kër diw yóbbul kër diw nekk bi mu koy wax fàtte na këram gi ci boppam ca suba bàjjan sa ànd ak ñooñu ne ko ñes wax la la xadijatu waxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu oral or ba ngoon jot mu ñëw ne lu ma dog amu fi ñëw ko dara amu fi mu delluwaat dellu jokkale koor gi ba ca ba yoonu ñetteel wa mu ne ko fu ñuy jëlee ñun mënuñoo am lu may ci yow te loo am loo te te kon lu ñëwut ci yow ñun ñëwut ci ñun benn bis na ñetteel ba mu yónnee ca Abubakar Saddiq ne nañ ko wax ne yonent ñetti fan ak ñu ngi eew mi ngi nelaw di eew te eh, di di jokkale koor gi ndax lu mu nekk mu ne yàlla na seytaan yàlla na àddina torox ma nekk ci dëkk bii yonent bi di fi xiif di or di jokkale ne indi leen nangami jël leen nangami nangami eh, sàq ci ci ci dugg ci tur bu indi leen nangami eh, xar ay xar lu nekk mu tudd ko ñu yóbbu ko yëpp ñëw ñëw te teew ci benn waaye bàjjen Assa itam moom itam mu daal di ñëw ci bàyyi ànd ak góor boobu ne ko ñun loo amut amuñ ci soxla te duñ ko yëg waaye dañoo bëgg su fekkee ne dara ñëwati na fi nga xam ne ñun yow lañ yaakaar soo ñëwatee bala ngaa génn bala ngaa joxe yëpp ci biti na nga na nga na nga joxe dara pour kër gi bàyyi na ko incha allah danaa ko def mu ne mu ne ko waaye maa ngi lay ci yàlla ne benn pepp génnut ci kër gi kër gee rëy rek waaye li ñu yóbbu yëpp ci kër gi la bokk kon nag su bisab tey bi ñëwee fii mari na ñu gis yëpp di yokku li fi bàyyi jiwoon sax li fi ñewatam gi jiwoon sax muqaddam yi Seydi Ali ak xulafaaul arbaat yi nga xam ne ñoo nekkoon ak moom ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo ubbi fayda bi ca ca Cheikh Misri ak Cheikhaani ak ak ak ñëpp képp koo xam ne dëkk foo dem rek ci dëkk àddina bi da ngay foo foofu la bàyyi ubb juboon fekk am na Amérique gi nga xam ne moo gën a rëy sax ci la mujjee ñëw ci la mujjee ci ci la moom lañ mujje waaye da daf naa bàyyi li ci des ko bàyyee imaam Hassan yàlla na yàlla yorok leeram moom itam mu daal di ñëw ba mu demee toj ko toj boo xam ne ñoom itam xamuñ ne yàlla bind na ku mel ni imaam Hassan Cissé noonu tànk yooyu ci la Cheikh Mahi Cissé rek du tardé benn oote ci dëkk bi waaye du fanaan mukk juróom-ñaari fan yoo xam ne fu mu mën di dem su àjjuma jotee mu ñëw ñëw ku bëgg am ngant rek soo seetee moom ni muy def moom mooy taari waxambaane yi waaye mooy lisaanu fayda bi fu mu dem rek ñëpp dem nañ fa moo tax mu xam ne nopp lu amut mu toog amut mu mu jël jëmmam ji di ko def nii ñu ngi ñaan yàlla yàlla yokkool ko kattan yàlla may ko wér yàlla may ko jàmm lépp lu mu semb yàlla na ko fekkee yàlla na ko yàlla yàlla na bàyyi kontaan ci moom su bàyyi kontaanee Cheikh Ahmad Tidiane kontaan na yonent bi kontaan na ay bàyyi ak yonent bi ak Cheikh Ahmad yëpp benn jëmm ji rek la suñ ne taalibe bàyyi la rek loolu yëpp mu ngi ci kii nag taalibe baay la waaye dafa boole ñaari majmaal bahrayni doomi Seydi Ali la doomi Cheikh am Niass la ba pare ñu jox ko suñu làmmiñ mu di ko waxee moo tax moom su waxee ñun amatuñ lu wax ñu ngi koy ñaanal yàlla di ñaanal imaam Cheikh yàlla may ko wér may ko kattan ndax loolu yu taaru yi nga xam ne moom la ñu fi bàyyi bàyyi ñun loolu rek doy na ñu bànneex ñun dañoo toggal togge ba mu ba mu kii lekk lekki nu mu rafet rek moo ci des waaye bàyyi faggu na yëpp. te soo xoolee njabootam gi soo xoolee muqaddamam yi ak ñi nga xam ne ñooy ay ndawam da nga da gën a sant yàlla man ñi ñi ñi ngi euh, li may wax dafa neex ci xol waaye xam naa ne li may wax yëpp waxit la ndax nit ñaa ngi koy dégg te baat baat bi ñuy dégg muy kàddu alxuraan bi muy jàng tey tey la xatmaam bi lii nga xam ne doomi rabbaan yi ñoo ko doon def ñoom itam yàlla na yàlla yokk seen teer la fa nekkoon ba tey lawoon fa woon ba fi bàyyi nekkee ba tey dara soppeeku loolu ku am feneen fu mu am nga wax ma asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala nee na sëñ bi nee benn yoon ñetti salaat sëñ bi nee na hmm? benn yoon ñetti salaatul fatiha yàlla yokk leer way dawal yi yàlla yokk leer way dawlu yi yàlla jàppale ndaw yi nga xam ne yàlla jàppale ndaw yi nga xamante ne salafi ndaw yi yàlla taxaw taxawaayu ndaw xale ndaw yàlla dimbale ndaw yi nga xamante ni ñoo taxawaayu taxawaayu mag ñi. yàlla taas ñu si barke laylatul qadar. yàlla taas ñu si barke laylatul qadar. ñu jàmbaar ñooy wax laylatul qadar waaye moom saba wachin laylatul saba wachin hmm? hmm? ñu ngi ñu ngi ñëpp ñëpp teew nañ ñu ngi teew ñu ngi ñu ngi tadagal suñu rek Cheikh Mouhamadou Mahi Cissé